indi conséquences yi ay xalé yi ndaw ci si seen bakkan dama né nañu xalaat né fi dans ce pays là élection ça marche Localis, ça marchait à Dakar avec mon ami et frère parti pourtant il est de l'opposition 2012 ça marchait avec Macky Sall Nous ñu a def effort ñun en tant que politique nous am ay argument yi convaincre population yi ñu voter massivement si les populations votent massivement nous lañ fi jugé té lolu nous am un peu partout fi nga xamante ni taxaw nañu pour voter massivement parce que nous avons def nañ deux législatures successives tu prends douzième législature 13e législature mais ban bilan lañ la mën tégal un bilan positif amul ñooñu nañ lañ leen mën ñëw indi pour quatorzième législature pour faire quoi pour refaire la même chose ben sénégalais war ko là donc les nañ ne ton, richesse la paix nous ko sauvegarder combat le de combat dañ permettre nous ñëpp une interdiction nous ñëpp interdire ka dem taxaw nous non donc nous devons ko nous encore une fois pour de manifester nous ko manifester. ku deful dara bu ko fekk këram di ko jël wala nga am immunité ñu lay jël ce sont des choses yoo xamante ne mënuñu ko d'accord au niveau de